je je je, je m'étonne mm -hmm. que nga ébruter par exemple euh, cette tentative euh, de de de de, de waxtaan qu'il y a eu boo xam ne lancé na Gagny Sakho euh, moom moo ko moom moo ko initié pourquoi nga jël la responsabilité nga génn loolu alors que c'est c'est c'est un événement qui aurait pu euh, rester caché non secret dans un état il faut que les gens assument leurs responsabilités mm. faut que les gens xam nga tey doo dikk hmm? cette histoire là mu am plus de cinquante morts bis bu yàlla sàkk ngay xamb nu mu gën a tànge di joxoñ ay doom aadama naan leen dem leen deewi ci te doo génne sa doom yow doo génn ay doomi jàmbur di dee ñu ni ndéet nga ni leen yéen ñi dee bu ngeen dee seen ndey juraat ñu ni déet nga taxaw sa devant les sénégalais ah nga ni dem leen manifeste nga ni policier xajal leen sama doom mu dem jàngi ji école ay doomi jàmbur di jàng di manifester ji nga ni déet sama doom ab buul bac te fekk ay doomi jàmbur waroon def bac dee nañ ci man ba pare nga taxaw guddi ngay yónnee di dox di dox naan nañu na na. est-ce moom moo yónnee. est-ce que du des initiatives individuelles personnelles. waaw mais man néew moom moo yónnee dama ni. dama ni dans la ronde des la ronde des visiteurs du soir. ku leen yónni ak ku leen en tout cas li ma wër te wër moo di ña ko a yëg umpale wuñ ko bu ñu ñëwul it umpale wuñ ko te nag xam nga man may mun journaliste la te damaa am samay feem mën naa junj dara dese lu bari. kon waxagoo dara dese nga. dama leen di mën naa junj dara te dese lu bari mën naa junj dara te dese lu bari. waaw doo wax lu des. non du ma du du c'est pas xam nga ay nit boo koy léeg-léeg euh, da ngay am la nga xam ne da koy gànnaayoo fagar fagaroo ko euh, doo xëy rek mbir xew nga daal di la nga say bal yëpp nga génne ko. mais mais mais xam nga lancé na. dox na loolu. mais ak keneen ak ñeneen. mais lancé na waxu ci. Hmm. waxewu ko. Hmm. doxewu ko. tey deful benn déclaration boo xam ne hmm. mënoon na la pousser hmm. nga nga nga nga ressentir le besoin de démentir Euh, hmm. je je comprends pas pourquoi nga décider euh, plaquer euh, loolu sur le livre ba moom sax euh, muy euh, muy muy muy muy dénoncer le fait que nga nga nga révélé ko li mu wax li mu wax lan la li mu wax moo di que non weddiwu ko non non mais mënu ko weddi mais il mën a mënu ko weddi révélé loolu mënu ko weddi parce que non xam nga tey xam nga s'offusque nee na moom depuis deux ans du ma liir xam nga loolu la bind. Ah. te terewu ko moom du ma liir ndax dafa xëy ne dafa maa jéppi te terewu mën a ñëw sama kër ñaari yoon loolu mooy yëfu naa feq am déet yow nga ne nit ki du ma ko liir ndax xëy na nawloo woo ko wala jéppi nga ko da ngay dox guddi di ñëw këram ñëwul ñëwati ñëwati loolu du yëfu naa feq xam nga il faut que aussi nit ñi xam ne que ay sequñu ko kooku ay dof ay nawle lañ ko seqal. Sénégal fii jàkk yi lëg la kenn mënu fay jaay sa morom ku di nopp il faut qu'ils arrêtent mënuñu dikk fii du benn du ñaar bu ñu dikkee xëy def les déclarations les plus intempestives ils brûlent le pays ay doomi jàmbur di dee ñuy def leneen il faut les dénoncer c'est les dénoncer c'est faire œuvre de salubrité publique mais pourtant am na ñoo xam ne. dox nañu. Euh, mais yow de pourquoi révélé woo seen identité am na ci koo xam ne nga tuddee ko Émile. Euh, nga ne pour pour pour. non dama ni dama ni pour sa ah, pour sa sécurité parce que aussi bëgguma que nga xam ne xam naa ne que il court des risques sécuritaires ma joxe trop. man man je vais être factuel nga nëbb ñenn tur ñi. man parce que euh, et et vous choisissez de de de bu kenn ñëwee ni ma dama laa bëgg seet si ma jox ko rendez-vous ñëwul mais soxla lu may wax trop. n'est-ce pas nee naa un patron d'entreprise qui dit organisation patronale woo na ba jël ak man rendez-vous mu annulé kon ñëwul kon soxlawul ma naan diw diw la. et c'est étonnant. beneen affaire bi ma jaaxal mooy euh, que ay proche Ousmane Sonko di ñëw ci yow man bi ma xoolee dama xoolaat date bi ma demee lii ban année la ma gis février vingt-trois barki Dembo Ndiaye laa lay wax. ma ma gis février loolu aussi daf ma daf ma daf ma intrigué mooy li ma la wax ni la duplicité des gens la duplicité des gens man damay xam nga loolu mooy xam nga ça mérite d'être connu des Sénégalais aussi parce que parfois aussi bu ñu nax léeg-léeg damay toog gis benn Sénégalais mu taxaw ci télé bi yëkkati yenn kàddu yi wax ko ree daf may jàpp. est-ce que la politique loolu la war a doon wuruj ak wax Sénégal leneen lu nga xam ne mooy li dëppoog la réalité ak nax nit ñi moi je le refuse je le refuse néewuma nit du ma set mais ku ma ci set dama lay wax li nga xam nga damaa wax ni que da ngay ñëw man la lii laa lay wax am naa xam ne ba wax naa nit di que ne ma damaa bëgg a seeti Macky Sall foo si def terrain ma ne ko yaay kan ba Macky Sall di la recevoir terrain neutre soo ko bëggee gis par exemple. en 2013. ah non non non ça c'était pas non non peut-être une euh, non ça c'était autre chose c'était autre chose. c'était l'histoire de Taïbou Ndiaye quand je l'ai rencontré et qu'on de l'affaire Taïbou Ndiaye mais entre-temps des gens peut-être veulent organiser une rencontre entre Macky et Ousmane Sonko. nga décider des conditions. mais mais pourquoi pas. moi yëpp naa Macky Sall en tant que chef d'état maa ne ko mais booy président yow diw daf la bëgg a gis mais mais c'est sa euh, responsabilité moom moo ko nangu mais man du ma man a du ko nangu te du ma ko du ma dikk yebuma président ba naan ko kaay rencontrer un quelqu'un en lieu en lieu neutre ku nekk cër bi ngay jox nit